ayca xoolal ma xamal leen ok. jox ko musuwaay jël ko musuwaay xoolal fii fii sans sans comme si sa sa bouche. musuwaay bi ñu la ko tàllee ñu ko tàllee. ëpp kaay bi carrément. ku ne doog fatoo parce que bëgguñu waxtaan wi dagg te li ñuy wax am na solo lool am na solo lool li ma wax sànq nag ay waa kër Abbas ay kilifa li tax ma jël micro bi wax war na ma parce que tey ki ñaan soxla sama xarit la ki ñuy ñaan sox ki ñuy takk tey jarbaat la doom la di sama deret sànq nee naa ba pulo tey di damay nganale waaye beneen bi kii ñaan soxna jël première njëkk bi may ko sama soxna maam Ndiaye ma ne ko lii nag lu tax mënuma duma dugg Sénégal ba lii di xew te duma jël lekk li jox ko jabar ay day ba ma ko jotee mu ne ma waxatuma sax tàkk gi waaye njëkk moo ma yàlla na fi mooy def li ko neex ne woon nañ bés bii dinañ ko wóoti waaye ñu ngi fi say ndee ngi fi say bàyyee ngi fi say ndijaayee ngi fi say kilifay jëkkër a ngi nii ñëpp ngi nii li anglais bi naan congratulation yal na la ci yal na la ci yal na la ci fa nga jëmit def leen mag muy soxna Faatu di soxna ci leen nan doon sa mag nan doon sa royuwaay del waxtaan ak ñoom bul xiiroo bul ŋaayoo say borom kër na nekk say borom kër na nekk sa waajur na nekk sa xarit te xam naa ni loolu dañ ko def bu dee ni ngay waaye noonu la neexee di say lu neex kon nag yàlla na jëg ay dem waaw waaw ma jox la kon da ngay reetaan da nga ñaanga dafa tegal sa tool boobu tegal ëpp gaa bi ak sa téléphone yooyu nga defal ko carrément voilà defal ko ba da ngay def nii booy defal xaar ba mu pare mu xool xaar ba mu pare ak dafa dafa da ngay suñu yow tamit tey tamit tey tey bàyyi bàyyi ko nee na bàyyi ko. ak ak ak ak Rose. waaw waaw waaw waaw. non defal nii defal nii la pause yaa ngi wax. waa jël ok tey jëlee xool la rek. non non. da ngeen di reetaan parce que c'est la joie da ngeen di koy xoolal seen atel xool leen ko. reetaan leen waaw. oh c'est l'émotion. Arrête de pleurnicher comme ça sinon tu vas gâter ton mariage carrément. Eh, Kanga, you you help me. What I say in English? Come on. You, you, you understand? Tell me. Yeah? I'm, ah, I'm tired with this Oui. Attends, <laughs> <laughs> attends. Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Baye Serigne Saliou nee na Seydina Muhammad Muhammad Rasulullah naqiyun taqiyun Seydina Muhammad naqiyun taqiyun Seydina Muhammad naqiyun taqiyun Saliou waxamas loolu بصير لمن لله برقم حسنا كم سيدنا محمد محمد رسول الله وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين من ضمن بلاي وي وما أرسلناك إلى كافة للناس من ضمن بلاي وي وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين محمد من ضمن بلاي وي سيدنا muhammad sayyiduna muhammad borom bare roor ba ca madina bay sëriñ Saliou Mbacké sa waaja deena naka yu taxin saaliwun waxa mas li woon saaliwun waxa mas li woon basiru li ma ni laay moo bëgg sëriñ Saliou sëriñ Saliou Mbacké sa dem gi daal jaaxal nanu sëriñ Saliou nga doyloo borom jannatul maxwa magal leen sëriñ Saliou sa dem gi daal jaaxal nanu wala du xamoon nga dem banu ay sëriñ Saliou fu ñuy jëlee di xel mu dal suñu xol yi weet kenn weet daara yi weet kenn weet da ngeen di def rek fu ñuy weet kenn weetul sëriñ Saliou Mbacké sa dëkk gi daal jaaxal na ko ay Mbacké yow la du xamoon nga dem banu fu ñuy jëlee di xel mu dal sëriñ Saliou Mbacké sëriñ Saliou Mbacké su waay du ñeewaayu keneen wajata madina mamado mamado al jaaxal nanu ay mag yow la nu xamoon nga dem nanu fu ñu jëlee di xel mu dal Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké sawaay du ñeewaayu keneen wajata madina mamado mamado dafa ni ngi màggal Seydina Muhammad inna ma masalu sifati kalinaasi كما مثل النجوم الماء أتى بسماء كل فضل فمات بر إلا أتى بك الأدواء كونك سيدنا محمد يلا برم جامي نينكو يلا برم جامي نينكو مرسلناكو إلى رحمة للعالمين من جنب الله يلا برم جامي نينكو وما أرسلناك إلا كافة للناس من دم دم لاي وي سيدنا محمد بربل يوم بسواجة نبو صدقنا ولد خير نبي محمد وبك سيدنا محمد لا إله إلا الله ومعينا واي ومعينا شر سفساد اللبي وما يبني سبايا بار واجب من سب موي سبايا تنو شر سفساد اللبي